boo gisee mu wàccee lislaam ngir nit nit ci jëmmi boppam yàlla da ko fonk fonk gi mu fonk tax na mu nekk ci sànce nit pareegul ci ni ko yàlla bëggee sunu borom mi ngi wax ci suuratu tiini ne wa tiini wa saytuuni wa tuuri siiniin wa haasal baladil amiin laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiimin summa radadnaahu asfala saafiliin illa allazina aamanu wa amilu saalihaat fa lahumu ajrun xayru mamnun fa maa yukasibuka baxdu bi diin alaysa allahu bi ahkamil hakimin foofu lu nu yàlla wax daa am luñ koy waxal mu di ko weddi te ñu bari ci waxkat yi waxal nañ ko ko te waxu ko dañ ni yàlla nee na nit a gën ci li ma sàkk mu ne waxuma loolu loolu amul ci alxuraan nit a gën ci li yàlla sàkk amu fa daf ni nit a mën a gën ci li ma sàkk waaye nim ci man a gëne possibilité la ni la ci mën a yéese nag daa nekk ci diggante mën a gën ak mën a yées moo tax mu teg ni ni mën a gënee lu dul yàlla rek noonu la mën a rote ba yées sax bàyyi ma li tax nga xam ni yàlla waxugul nit a gën mooy am na ñu doon nit ni nit ñi yor forme nit ma xool leen ba yàgg ma ne in humoo ila kalanhaami bal humoo adallu wa ulaika humul xaafiluun yéen kat yéen bàyyi ma yee yem ba yàgg mu ni sax su ma leen yemaleeg bàyyi ma yi tooñ bàyyi ma yéen a yées bàyyi ma yi tey nit daal ne seen tàggantee leen fa yóbbu kon loo cay déggee yàlla du wax di weddi boppam bu ni woon nit a gën du wëlbati ko léegi xool nit ne ko yow mii de bokk nga ci ñi nga xam ni bàyyi ma sax a leen gën kon day mel ne daa wax weddi boppam muy contradiction amut ci alxuraan kon lu mu wax nitam mën a gën lu tax doomu aadama ni ko yàlla sàkke mooy lépp lu yàlla sàkk ci yu baax yi ak safaanub yu baax yi lépp bu degale na ko ci moom alxuraan boole ko ci ñaari baat mooy assulumaatu wan nuur baax benn rek la mooy yàlla mooy leer gi lépp luy lu baax cosaanam mooy leeru yàlla waaye sulumaat mooy lëndëm lëndëm yi lépp lu safaanub lu baax rek sulumaat la ñaar yooyu yëpp dafa daje ci biir nit moo tax alxuraan ne wa ma min dabbatin fil ardi wala taa'irun yatiiru bi janaahihi illaa ummamun amsaalukum maa faratna fil kitaab min sayin nit fi mbooleem lépp ngi ci moom moo tax ngay jékki-jékki gis nit kuy dox doxinu bàyyi ma lu tax mooy bàyyi ma gi ci moom daa ko suul nit ki ci moom léeg nga dégg ñu ne comme comme bàyyi ma sàngam booba loola daa tàmbalee feeñ ci moom ndax lépp ni ki nit léegi nag mu nekk ci sànc nag yeneen yu dul yu baax sulluwaat la tudd lu baax li nuur la tudd dama lay wax l'islam li ko tax a jóg génneel la li tax man la di di sa bii résultat la ci l'islam ndamam la loolu laa la bëgg leeral nii bi mu nekkee ci loolu moom nit sànce boobu nag yàlla ci la andee diine jiiniy wax lislaam mu doon lan diine joo xam ne day jaar ci ay yonent yonent yooyu yëpp bawoo ci benn yonent muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax benn yonent boobu rek am ñi ki des ñëpp ay dogit lanu ci rasulullah sëñ Tuubaa mi ko xam moo tax mu ne ko salli ala hisbil ilah nihmatihi baabil ilah siraatihi huddal ilah wa sahbihi wa sallimi yow yaay kuréelub yàlla bi salli maa ngi julli ci nga xam ni hisbil ilah mooy kuréelub yàlla bi yéen ñëpp xam ngeen ne baatub kuréel mbooloo lay firi doo dégg ñu ni kuréel gi ñun cantaa ko ba bu ñuy wax suñu bopp dañ naan kuréel gi kuréel gi du kenn du ñaar ñun ñëpp la am déet sëñ Tuubaa ne yonente bi yow dong yaay kuréelub yàlla bépp kon loo cee déggee mooy ñëpp ay dogit lan rek ci moom léegi nag moom moom mii nag yonent yëpp kenn ku ne am loo doon ci moom ñu bokk jenn diine ji muy lislaam inna diina xindallaahi lislaam lu tax a jóg lislaam mooy nit ci jëmmi boppam yooyu nga xam ne yàlla muul na ko ci moom te bu sullikoo da koy tax a yées ak yim muul ci moom te bu sullikoo da koy tax a gën lislaam daa ñëw doon benn machine boo xam ne su réglee day suul yi koy tax a yées ba du sulliku di sulli yi koy tax a gën ba mu sulliku nit gën daal dugg ci asanu taqwimin yooyu nag bu sulli koo lay tudd njub moo tax lu mu wax yàlla lu mu yàlla wax yonent bi kaamil bii yëpp benn baat dong la bëgg ci yéen mooy baatum njub gindiku alif lam mim zalikal kitaabu moo tax sëñ tubaa nee na hudan jooju rek ay téere bi ku ko mokkal mokkal nga lépp kum nekk ci yow téere baa ci yow moom mi xam alxuraan xam cosaani ak aay yi ndax moom jàngiwu ko fii sëñ tubaa dane wattu naa alxuraan xam max naa yetta wattu gu rasulullahi kooku moom mooy waa ji xam nga hafistu ma ansalahul jalilu xabla insalihi ma tartilu daan na itam jàngiwuma ko ci ustaas yi yàlla mi ko wàcc ci rasulullahi moo ma ko jàngal firil ma ko wax ma taawil bi may ma ko laqana nii tafsira wa taawila muxnin la day yaxalada tanwila kooku moo ne nu alxuraan jëpp ñetti maska la ñu ne ko ban ak ban la mbàkki mu ne maska ak yet masque ak lonku masque néeg masque ak mooy bu jub mu dellu ci baatu hudan muy ak njub masque ak lonku mooy bi def nii te roowagut masque ak néeg ne mooy bi tëju sëñ Tuubaa ni ñetti nit ñi tax a jug lislaam ñetti ñetti masque yi moo leen tàqale daane masque yet gii mooy baatu bu hudan mooy ñi nga xam ni yàlla daa bëgg nu jub sunu jubee mel ni yàlla bëgg nit mel ko mën a texe daan ne mboolem yonente yépp googu lañ bëgg ñëpp doon ko te ñu bëgg ñu doone ko ci lislaam ji masque ak lonku gi nag masque ak néeg gi la ca teg ne masque ak néeg gi nag mooy yéefar yi mooy gi nga xam ni dëng na baron nee na googu saytaane ko kuréelam foofu lan ne daan ne coow mi ci masque gi lonk yi nag mooy naafiq yi kon ñetti nit a am jullit piir yéefar piir naafiq mooy ku kenn xamul lum doon mu sab si bii na bay na saalik nee na yonente yi dañoo bëgg a ci lonk gi mu far jub bokk ak yad wi seytaane moom di jàpp ci lonk gi pour mu doonum néeg ñëpp doon yéefar moo tax suñ tubaane bi nga nee xalaa xudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun yéefar jullit dugg na bi nga ne inna la si na kafaroo salaawun alayhim ansartuhum am lam tunsurum laa yomina mooy masque ak néeg gi yéefar dugg na daane seen atte leer na ma xasaaba naa sim daane wame naan naa si nag moo des ci téere bi mooy ñi nga xam ne yooxunu ñuulunu moo tax boo demee ci alxuraan li muy bari bari leeral na ni lislaam ji ñëwul lu dul jubal nit ak jëndi ko ci yàlla alif laam mim tilka ayatul kitaabi lu mu ko teg hudan wa rahmatan lil muhsinin ñoo ñan allasina yuqimuuna salaata wa yuutuuna sakkaata wa hum billaaxirati hum yuqinuun téere bi joxuma la ko lutul nga gindi nit ñi ñu mën a am ak njub gindiku mën a gën daan ko loolooy mën a tax sax ñu mën a pratiquer diina ji nekk te julli gi woor natt asaka aj maaka lu ca nekk lan la luy jubbanti nit ngir moo mën a mel ni yàlla bëgg nit mel ni di suul ci moom sulumaat di génn ci moom am nuur moo tax mu naan kitaabun ansalnaahu ilayka mubaarakun lu mu ko teg li tuxrija annaas min assulumaati ila nuur bi isni rabbihim waaye wa yahdihimoo ila siraati alxasiisi alxamid gis nga yahdihim xudan ñëwaat na gis nga baat bi ni mu dellusee kon loolu la ba téere bi jeex moo tax alif laam rek kitaabun ansalnaahu ilayka li tuxrija naasa min azulumaati ila nuuri bi isni rabbihimu ila siraatil xasiisil hamid gis nga yahdi bihi llaahu man ittabaa ridwaanahu subula salaami lam ko teg wa yuxrijuhu min azulumaati ila nuur bi isnihi mu tekke wa yahdihimu ba tey ila siraatil mustaqim aaya bi ko gën a firndeel pour wan la ni la 17 avril mooy résultat bu l'islam mooy da dem ci suuratul suuratu xasas déggal li fa amma man taaba wa amana wa amila salihan fa asa ulaika an yakuna min al muflihin nun koy xamee man amana billah wal yawmi al axiri wa aqama walam yaxsha ilallah fa xasa ulaika an yakunu min almuhtadin gaa ñi nga xam ne tuub nañ dugg ci lislaam benn gëm yàlla gëm ko wér ñaar di jëf mboolem ndigali jëf ju sel lu ngeen mën a am ci yoon yooyu lu ngeen ci mën a dégg feeg yëggagu leen ci am ngërëmul yàlla ci tukki bi ngeen nekk àggagu leen loolu yoonu murit kon xam nga objectif yoon wi moo tax Seex Ibra Faal mi baabul muridiina wal muridaat kamtul maqaamaat wa saahibul masiyaat diyaa u tariqati kooku moo nu jàngal waxi Sëñ Tuubaa ji diglul maam Seex pour nga xam ne Sëñ Béthio lim nu defal àdduna mënu koo xam diglul maam Seex lim nuy wan ci luy ngërëm dañ koy wax rek waaye nit ñi sax xamuñ ko Seex Ibra dane mas nay xibaar ak njëbbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe néewul dama koo gént néewul dama koo listixaar dana yàllaa moo ko wax kon xam nga ma ngay wax ak yàlla wax ak yàlla du dara ju rëy daa rëy rëy ba benn yonent ko mooy Moussa kàllaamu lay benn yàlla jox ko ndigal na ko wëri Sëñ Tuubaa jot ndigalu yàlla beneen mbir la muy ñaar ñaari maqaama ngoog bi muy wër Sëñ Tuubaa itam ku mu gis nee na dana la natt xam sa daraja ci yàlla xam ni du sa morom mu bàyyi la fa koo xam ni koo xool xam nu mu toll ci yàlla beneen maqaama ngoog ñun ñi kenn xamante wu ci sa morom nu mu toll ci yàlla Cheikh Ibra comme ne jàkk xam sa daraja ci yàlla ñetta ngoog ba nopp bi muy wër Sëñ Tuubaa nee na tànk yàlla la doon topp gis tànk yàlla ku jug def ko ku mën a gis tànk yàlla du beneen affaire ñeenta ngoog nee na itam yemul ci topp tànk yi xet gi da koy xeeñ xentu xetuk yàlla ñun ñi ko ci sot dong doo xentu parfum waxuma la xentu xetuk yàlla muy juróom ba nee na bi mu gisee seen aadama gay da cee seen leerug ki muy wër ba mu rab xet gi xeeñ ko ca safara seen leerug yàlla ak man koo xeeñte ni beneen affaire juróom-ñaari yëfa ngoog gis nga yii bi mu ko boolee wan nanu ne yii yëpp daje na waaye waaye na la warut di neexal nag ndax yaa ngi tudd aboori jaalulaay baay góor ñi ba tax Seex Ibra Faal mi baabul muridiina wal muridaati kamtul maqaamaati wa saahibul masiyaati diyaa u tariqati kooku moo nu jàngal waxi Sëñ Seex pour nga xam ne seen becco lim nu defal àdduna mënu ko xam diglul maam seex lim nuy wan ci luy ngërëm dañ koy wax rek waaye nit ñi sa xamun ko Seex Ibra dane mas nay xibaar ak njëbbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ni bamba moom raasi ko jox ko say pexe néewul dama koo gént néewul dama koo listixaar dane yàllaa ma ko wax kon xam nga ma ngay wax ak yàlla wax ak yàlla du dara ju daa rëy rëy ba benn yonent ko mooy Muusa kàllaamu lay benn yàlla jox ko ndigal na ko wëril sëñ tubaa jot ndigalu yàlla beneen mbir la muy ñaar ñaari maqaamaa ngoog bi muy wër sëñ tubaa itam ku mu gis nee na dana la natt xam sa daraja ci yàlla xam ni du sa morom mu bàyyi la fa koo xam ni koo xool xam nu mu toll ci yàlla beneen maqaamaa ngoog ñun ñi kenn xamante ci sa morom nu mu toll ci yàlla Cheikh Ibra comme na jàkk xam sa daraja ci yàlla ñetta nopp bi muy wër sëñ tubaa nee na tànk yàlla la doon topp gis tànk yàlla ku jug def ko ku mën a gis tànk yàlla du beneen affaire ñeenta ngoog nee na itam yemul ci topp tànk yi xet gi da koy xeeñ xentu xetuk yàlla ñun ñi ko ci sot dong doo xentu parfum waxuma la xentu xetuk yàlla muy juróom ba nee na bi mu gisee seen aadama gay da cee seen leerug ki muy wër ba mu rab xet gi xeeñ ko ca safar seen leerug yàlla man koo xentu di beneen affaire juróom-ñaari yëfa ngoog gis nga yii bi mu ko boolee wan nanu ne yii yëpp daje na